voilà Anna Thiaw may nuyu auditeur u Rewmi FM yëpp wala sax di leen nuyuwaat euh, ci seen euh, invité matinal rubrique euh, version wolof bi tey ji nag invité matinal bi dalal Macodou Fall moom mooy coordonnateur u collectif des impactés du train express régional Macodou Fall maa ngi lay nuyu voilà Macodou Fall euh, may fàttali yow yaay coordonnateur au collectif des impactés du train express mm. euh, régional TER euh, ni gi ni démb 27 décembre ci lañ mm. doon màggal an 1 bu train express régional naka nga gisee màggal boobu ak tamit train express régional ak population bi nekkee ci banlieue bi naka lañ ko gisee waaw express régional moom vraiment projet bu baax la d'ailleurs ñun defe ni collectif bi tout au début dañu mës a défendre projet bi parce que <coughs> projet la ba nga xam ni day desservir Dakar donc faciliter dem bi ak dikk bi ci banlieue bi te boo xoolee depuis ñu inauguré teer bi ba léegi vraiment nit ñi ñi ngi jël terre bi bu baax a baax macha allah donc euh, vraiment am nañ facilité donc euh, pour euh, accéder à Dakar facilement. Mhm. donc loolu moom vraiment dañ koy rafetlu quoi. Ah, voilà A1 ah, bi daal maanaam train express régional est-ce que indi na coppite bu bari ci askan wi jóge ci banlieue bi di liggéey si fii Dakar. waaw waaw euh, ñoom seen. voilà waaw waaw waaw waaw waaw sa euh, coppite bi moom ñëpp constaté dañ ko. vraiment ñu bëri en un temps record ñu dem Dakar ñëw. donc bu nga xam ne tey jii bu njëkk bala nga daan dem Dakar da ngay def ay une heure deux heures de temps. Mhm. trois heures de temps même sax. Mhm. mais léegi à ah, quinze quinze minutes vingt minutes fii a Dakar. Mhm. donc loolu moom vraiment gars yi defaluñ luñ koy rafetlu. Mhm. c'est un bon projet daal comme ni ma ko waxee rek mhm. voilà. côté prix yeeg ba léegi cher bi. waxatoo leen ko bi c'est abordable wala ça vaut le coup. bi c'est abordable parce que je me suis bu abordable woon gars yi dinañ génn mais vraiment ni ñu ko fixé noonu tamit xam naa ni c'est abordable. prix yi baax na tamit voilà. voilà ci côté bi mu nekk 3000 euh, famille euh, yoo xam ni ba léegi ñu ngi laaj seen indemnisation euh, est-ce que mën nga ñëwaat ak ñun expliquer ñu largement indemnisation yooyu naka la demee ba léegi ngeen daw topp di ko laaj état wu Sénégal 3000 familles. waaw xam nga xam nga projet yu mel nii nag bu koy tëgg surtout les institutions. international lu mel ay BAD ay BID banque africaine développement donc dafa am ay charte yu ñuy jëlee nit ñi ci projet yu mel nii te euh, en matière d'expropriation aussi ci loi sénégalaise yi tamit dañ ko prévoir maanaam booy jëlee nit da nga koy fay ak da nga koy fay ba pare door ko jëlee fi mu dëkk comprendre te euh, dañu ne boo koy fay tamit da nga koy fay mu doon une indemnité ba nga xam ne juste et préalable donc loolu la ñu wax mais ci projet bi vraiment euh, euh, état bi respecté wul loolu yëpp respecté wul loolu yëpp mooy lan mooy non seulement li mu fixé woon pour barème pour fay ñu ko euh, dafa dafa dafa tuuti. Mm-hmm. mais ensuite mu bëgg ñu déplacé wu mais dafa ne amul site de recasement donc loolu yëpp état bi noonu la def il a collectif bi juddu taxaw pour défendre les intérêts de ces populations euh, yu ñu war a déplacer ba finalement donc président recevoir ñu ñu door a rehausser euh, li nga xam ne tey jii moom la ñu woon comme indemnité ñu xaw ko euh, jubbanti tuuti jubbanti bi tamit lu ñëpp tamit parce que la plupart du temps ñu bëri dañ leen ne état kenn du xeex ak moom mais moo tax ñooñu ñu bëri dañoo dem te xaaruñu daal vraiment ñu collectif bi di xeex ba am gain de cause wala yu mel deuxièmement mooy ni ci xeex boobu ñu doon xeex tamit ci la président recevoir ñu ne danaa leen jox suuf pour ngeen dëkk donc loolu daal waxoon nañ ko tamit donc pour vous dire que euh, li nga xam ne tey jii doxale nañ ko ak impacté yi vraiment ça ça pose problème ça pose problème vraiment. kon daal état leen digoon yëpp defu si dara wala am na lu mu si jot am na lu mu si jot a def parce que. état bi lu ñu digoon bokk na ci lu ñuy prime lu ñuy ne prime d'accompagnement social. Mm-hmm. ay chèques de vulnérabilité ak euh, perte de revenu locatif maanaam tey ji boo luwee sa dañ ko war a euh, le prix du loi bi nga ko luwee woon nañu war a multiplier par six ñu jox la ko loolu nag dañ ko tënkoon ci benn document bu ñu tuddee par un plan d'action et de réinstallation ba nga xam ni tey ji vraiment lépp mi ngi ci biir quoi naka dañ lay déplacer loolu yëpp tamit. dañ ko waxoon ci document boobu mais problème bi mooy euh, li nga xam ne tey jii tey jii mooy li may wax noonu muy accompagnement sociale bi état bi fayegu ci kenn. deuxièmement prime de vulnérabilité bi ñoom dañ ñun fixel ay critères ni ñuy fayee vulnérabilité ñun ñun leen toute toute personne déplacé est vulnérable donc c'est pas normal à ce que ñoom ñu ne donc ci la defe naa ni lañ doon discuter ba finalement. du temps de Boun Abdallah Dionne defe naa ni lors d'une réunion moom daal moo fixe à mille personnes yi nga xam ne tey jii mun nañ séddee ñi nga xam ne dañ leen fay un million deux cent muy prime de vulnérabilité mais boo xoolee commencé nañ fay mais nombre bi ñu fay tamit bëriwul demeewul noonu quoi des na ba léegi ay nombre ba nga xam ne bu bu am solo ba nga xam ne fayaguñ leen mm. donc loolu lool loolu moom vraiment ñu ngi koy sàkku pour ñu fay leen ko. Hmm. voilà socialement naka ngeen ko dundee parce que 3000 familles yoo xam ni euh, ñàkk nañ seen kër état li waxoon waxu ko socialement naka ngeen koy dundee. waaw socialement métti rek métti yi parce que vraiment da gis tey ji ku amoon kër dem rek benn paa woon na ma démb di ma wax ne comme quoi que moom locataire la ba léegi ba instant bi may wax yow. Hmm. ba instant bi may wax yow man sax gëwuma ko woon mais. nee na fay ñoom jotaguñ sax seen chèque d'ailleurs seen mm-hmm. chèque principal bi ñu waroon jot jotaguñ ko. Mm-hmm. donc levier là il habite à Rufisque donc am na ñeneen ñi nga xam ne tey jii amoon nañ kër mais léegi ils sont devenus des locataires. donc vraiment di xale yi tamit ñu bëri ñi nga xam ni ci projet bii nañ perte seen jàng. am na ñi nga xam ni mag ñi nga xam ne ñu bëri ci nakaru xol defe naa nañ génnee àdduna ci ci projet bi donc conséquences yi mënoo ko mesurer. boo xoolee euh, jigéen ñi nga xam ne tey jii euh, ñoo fi doon euh, def ay activité économique nga xam ne mooy seen principal ressource ci ci nañ am am amatuñu fu ñu fu ñu jaayee te parce que dañu amoon facilité dem côté comme ñu dekoon dëkkoon yi dem ci marché bi facilement ñu ñu doon subvenir seen besoin maanaam bu ñu jëndee jaay am lu ñu dundalee seen njaboot. Mm-hmm. et tout ça mm-hmm. mais fu mu nekkee ci zone yi c'est tellement voilà dafa enclavé ba nga xam ni tey jii liñ doon mëne comme activité yëpp amaluñ ko. Hmm. ba pare li gën a grave mooy président dafa ne woon vous allez bénéficier les nouveaux métiers du terre. Hmm. maanaam danañ gars yi dinañ leen jox pour euh, vraiment euh, ay métier yu bees ci terre bi mais tey jii fi may wax ak yow amul benn impacté bu bénéficier wu ci ci terre bi amul y en pas hmm. donc loolu yëpp vraiment ça euh, ay conséquences la nga xam ni. dafa dal ci ci njaboot yi nga xam ne tey euh, dañ leen dépal déplacé par la terre. Mhm. négociation yi fan ngeen si toll est-ce que seen situation njiitu réew mi yëg na ko waaw wala déet. waaw njiitu réew moom ku ku ñu recevoir bu ñu demee ba njiitu réew recevoir la ñett yoon. Mhm. c'est parce que il est courant. te mhm. ñëpp xam nañ ne Macky Sall importance bi mu jox terre bi. donc ñun tamit à notre niveau comme tamit nous sommes des légalistes terewul tamit euh, ñu lépp lu ñu koy teg si yoon suñu xeex bi lépp ñu ngi koy teg si yoon. bind nañ ko sax d'ailleurs lu yàggul y a pas deux mois bind nañ ko pour une demande d'audience parce que ba mu ñu mujjee recevoir dafa ne boo leen demee ba gisu leen loo leen xam daal revenez me voir pour ngeen jox ma la situation et tout ça donc ça fait presque léegi temps yi surtout temps yi nga xam ne tey yi lanteer yi bëri na kenn mënul fay benn kii yooyu. Mm-hmm. te vraiment ñu bind ko pour au moins mu recevoir mu xool parce que à chaque fois bu ñu recevoir mi ngi mi di dox. moo tax it ñu bëggoon vraiment comme ni mu waxee woon le jour de l'inauguration du TER le vingt sept décembre mu ne woon dégg na suñu suñuy doléance et tout ça te gis na suñu esprit citoyenneté et tout ça donc nee tamit dina résoudre suñu problème dans les deux mois qui suivent donc noonu la ko waxee woon donc vingt sept décembre ba ñu nous sommes au vingt huit décembre tey te avancé wul tamit loolu tamit ça pose problème donc hmm. mën a lu dul fàttali ko li mu waxoon donc bu ñu nag bu ñu recevoir rek ñu toog de vive ñu wax ko li nga xam ne tey jii mooy suñu doléance loolu tamit doon nañu gënal voilà. léegi ngeen bëgg a Macodou Fall ngeen bëgg a organiser euh, benn marche 14 janvier marche bi fan ngeen ko bëgg a defee naka lay doxee est-ce que tamit am ngeen autorisation waa wala déet. waaw ñun de bëgg nañ si suñu réunion point de presse bi ñu defoon bërki dem ñu organiser benn marche le quatorze janvier incha allah donc euh, quatorze janvier ñu ngi koy organiser ci Thiaroye Gare Tali Diallo. Hmm. donc marche boobu tamit comme tamit nous sommes des légalistes. ñun suñu manifestation yi ñu sa def yëpp dañuy demander def une déclaration de marche avant que ñu koy def te incha allah dinañ ko def te ñuy woo tamit appel à une mobilisation à une forte mobilisation. Mm-hmm. bëgg nañ daal impacté yëpp ñu daje vraiment pour la réussite de cette manifestation là. Mm-hmm. voilà euh, tamit ne nga nguur gi suñ leen faalewul di ngeen euh, voyage si bi a votre manière maanaam da ngeen si terre bi. du ngeen jënd ticket wala lan ngeen. bëgg a def waaw en fait. Euh, mm-hmm. comme ni ma la ko waxee rek. ñun defe naa am na la ngeen lu ñu planifié la nga xam ni. après aussitôt la marche là. donc dañuy bëgg voyager ci terre bi. Mhm. donc à notre manière. donc nu ñu fay voyager nag euh, ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy. nañ ko sax ba pare mhm. yekk rek moo ci des donc vraiment d'ailleurs sax keroog suñu réunion am na benn impact ba nga xam ni mhm. nee na dafa jënd cent ticket mu may ñu ko waaw cent ticket mayegum nañu ko ci ci ci ci voyage boobu donc vraiment journée boobu moom xam naa ne journée bu extraordinaire lay doon. ah bon ci euh, ci bi waaw lool moom je vous le ah, dis. lan ngeen bëgg a def ah. exactement da ngeen di takk morceau yu xonq dugg si <laughs> teer bi wala. du hmm. ñu ko dévoilé mais dinañ def la nga xam ne tey ji monde bi yëpp dinañu dégg. lu hmm. musul am nañuy def. man dama foogoon da ngeen dugg si teer bi sax du ngeen jënd ticket. duñ non bon. am na ñu déroulé. waaw am na lu ñuy déroulé bëgguñu ko dévoiler en fait bëgguñu si sori. Mhm. mais de la façon nañ ñaan yàlla rek. Mhm. ñu bañ a àgg si niveau yi parce que je vous dis que am na la nga xam ni. Mhm. tamit waxal waxuma la dugg terre bi rek mais am na beneen troisième plan d'action ba nga xam ni loolu même bu ñu amul satisfaction fa nañ jëm te loolu baaxul ci état. donc c'est pas des kii a nga xam ni vraiment gën gënal nañu quoi. parce que vraiment ñun boo xoolee depuis 2016 ba léegi ñu nangu suñu kër toroxal ñu suñu paay di gaañu et tout ça kenn gisul ñu lakk kenn gisul ñu yàq kenn gisul ñu def na ko sudul noonu defe naa ni dañuy jël en témoin euh, euh, la la kii euh, peuple sénégalais bi population mm-hmm. sénégalaise donc ñu jëlee en témoin ak opinion nationale comme international parce que tey jii xeex bi yàgg na te vraiment des gens qui on cédé leur maison pour faire passer un projet comme le TER defe naa ne ñooñu boo leen delloowul njukkal waroo leen mën a li nga xam ne de droit ñoom ñoo ko moom nga nga koy salfaañe loolu moom vraiment c'est c'est c'est déplorable quoi. est-ce que pare ngeen Macodou Fall euh, marche jëm ca palais ba parce que fan sax maa ngi dégg diplômé sans emploi yi ñoom dañoo parce que yuuxu nañ ba sonn kenn déggul leen nee nañ ni gini suba dañuy marche jëm ca palais pour euh, njiitu réew mi gën leen a bàyyi xel est-ce que yéen pare ngeen def lu mel noonu marche jëm ca palais ba. waaw xam nga marche dem ca palais bi am réussite boobu bëgg quoi. parce que mm-hmm. am na lu muy demee danañ la téye wala ñu mel noonu. Mm-hmm. donc mais ñun lu ñuy def nii gën a efficace. Mm-hmm. ñun xam ñun population boo xoolee tracé bi ñu fi dëkk ñëpp banlieue surtout côté yi ñu dëkkee vraiment am na lu ñu mën quoi xam nañ loolu donc vraiment. loolu moom du ñu dévoiler mais dama ne lañ ñaan yàlla ñu régler problème bi avant que vraiment ñu àgg à à à des daal. Hmm. voilà bi kañ la ak tamit euh, ban appel ngay lancer directement au président Sall. waaw appel boo koy lancer rek. mooy moo ñu recevoir wax ak ñun plus d'une fois donc à chaque fois li mu wax ñun dañ koy respecter di respecter autorité étatique yëpp parce que tamit ba tey jii nous sommes conscients. ñu ngi leen di déglu te euh, ba mu bëggee libérer emprise ak coow li ceer bi amoon yëpp ma koy fàttaliku donc yàlla collectif bi nekkoon fii vraiment pour faciliter la libération de l'emprise donc amoon na ay guddi yi nga xam ne ñoom daanuñu nelaw mais ñun ñoo leen ci taxawal taxawal ba vraiment ñu réussir seen mission donc di la ko rappeler aussi que ñun njabootam nañ bokk parce que tey jii mënuñu concevoir un tel projet puis déplacer ay ay milliers de personnes donc ñu ñëw di leen bëgg traité li nga xam ne tey jii ay ay ay bàyyi ma sax boo leen traité doo leen traité nii donc mu jël le dossier en main ñun daal loolu lañ bëgg vraiment jéem a xool nan la koy résoudre cette fois-ci pour un règlement définitif maanaam mu régler ko une bonne fois pour tous kenn dootul wax ci waxi terre parce que nous devons être les bénéficiaires du terre pas les impactés ñun loolu lañ gëm voilà donc te moom loolu la ñu waxoon. voilà merci beaucoup. Macodou Fall Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal. jërëjëf merci beaucoup. may fàttali ni yow yaay voilà coordonnateur bu collectif des impactés du train express régional ñu lay remercier. Ah.